du ma waxat sa diggante ak Aziz parce que loolu wax ci mu laaj bu yàqu la mais sa diggante ak doomu aadama yi nin la def ba tey jii macha allah Balla fu mu dugg lu waaye jàpp bàyyi ko ngir cofeel gu mu am ci yow lan lay def ci yaw waaw sant yàlla rek parce que doomu adama yi daf ma leen seen mbir xol suñu borom moom boole ñoom jàpp naa ne nit moo xam lépp lu mun a am ci àdduna rek doomu aadama yi la bokkal wala moog doomu aadama yi benn lañ. parce yàlla mooy sàkkee noonu nit moo jàmm laa sëkk ak ak salaam mbëggeel nag kenn xamul yàlla suñu borom rek ko xam fu muy jóge si nit da ngay sopp nit wala ngay bëgg nit da nga koy delloo cër bi rek respecté ko te xam ne gënoo ko gënu la mais suñu borom moo jagleel ni tey dafa war a bëgg doomu aadama te du xam na loo koy bëggee loolu nag waruñ cee yëg suñu bopp waruñ cee gis suñu bopp ñu jàpp na rek ne ah suñu borom la waaw moo tax nag saa su ne dañ leen di bëggee di jàmm di ñëpp jàmm bis bi nga xamante ne nag mooy bis bi nga xamante ne bis yonent bi sallallahu alayhi wasallam na ñëpp jàmm yàlla na ñëpp mucc yàlla ñëpp am nekk ci ay tolof tolof yàlla suñu mën génnee leen ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ñaanal Aziz nag que mënu ma cee bay ñàkk wax kon li nga war rek lu mel nii chaque année nga koy def lii la nit ñi di gis kon présenté wu dafa leer mu ngi def lu baax mais li muy def ci suuf moo kooku kon kooku jaadu na ñaanu ko yàlla yàlla sàmm sàmm njabootam ndax bu am njëriñ la ci société bi rawatina ay mbokkam rawatina ay xaritam rawatina doomu aadama yi rawatina ñi nga xamante mu ngi leen di dimbali ñaanal ko sax yàlla dala ciy sant ndax kuy def lu baax boo ko ñaanee yàlla sam la ci ñoo ngi koy ñaanal yàlla yàlla ko yàlla sàmm sàmm njabootam yàlla ful ko at bu nekk yàlla na koy gën a mën ay da donn ci ay maamam donn ko ci papam ba mu ci moom yàlla na ko ay doomi doomam di ko doon ci barke mu mel ne bi nga naan Aziz boobu lii lépp ñëwu ko fi bi ngay ànd ak Aziz di ko bàyyoo loolu lépp amu ko fi tey ku ñëw ci Aziz la fekk si tey seen relation lan moo ko concerné ba heure bi waaw yàgg na Aziz nee naa la moom njëkk a fayal salle musculation fekk sa Kastoor ba salle jafe boobu yi gi mu ngi nekk roi des arènes te boobu man salle boobu 300 000 la ak 200 000 kon nga xam ne loolu mooy ànd ak bàyyi bu mbëri di dem di dugg super man Mercedes saa yëg ànd ak bàyyi bëre ba bare li ma gañe du xaj sax si oto bi yenn yi de xaj oto bi lee du xaj donc ñuy ànd ba yoonu yàlla tey loolu sant yàlla la te dara lu ñaaw mosu fi am dara lu ñagas mënu fi ñu ngi ñaan yàlla loolu yàlla suñu borom moo ñu ko sàmmalee nga xamante ne dañuy sant yàlla rek loolu kenn ku nekk rek war nga sàmm sa diggante ak doomu aadama ngeen duroo ay jikko ci partage ci ku ngeen tane dimbali ko parce que li ne ci Aziz moo ne ci yow bari na looy def te bëggoon nit ñi di ko wax parce que yàlla ma tiim bari na fu may jaar ñu ne ma diw dimbali na ko boo dee dikk yooyu Aziz di def ngeen bokk ay jikko tey lan lay def waaw nee nañ booy donn donn doy dëgër waaye booy doon tamit na nga donn lu baax booy roy na nga roy lu que doomu aadama bu nekk rek da nga koy sa bopp Fadel mu ngi def lu baax man de bu fekkee bëgg naa lu baax naa wax Fadel ma di ko topp lépp lu muy def ci lu baax rek ma di topp ci di ko def parce que loolu la a ñun géejuwaay lañ juddoo fa lañ yaroo fa lañ màggee xam nañ ñu métti xam nañ ñu neex xam nañ lépp mais bu ñu yàlla jagleel si tamit yàlla suturaal nañu ñu koy partagé rek nga xam ne xam nañu xam nañ ko parce que dund nañ ko hmm. waaw mais li jaaxal ñëpp mooy bal a Dorel bala bu nekkul ci làmb da nga naan mi est-ce que doon koo weccoo balla ci biir lamb beneen palla tey palla bu toog di lekk laaxu la si def day mel ni mais day jaaxal ni ko lan la. waaw mais xam nga door ko dafa am lu xew. mooy ñun ay doomu aadama lañ bu ñu toogee ay nit ñi ay nit lañu boo ñu fekkee ci ay nit nag da nga naan déet kii du mbër mais mag bu passé nag ñu dugg ci làmb da nga naan ah kii de mbër la donc ñaari facettes yooyu mënuñu ko bay ñàkk yor loolu mooy àdduna loolu mooy sport. mais noo géré ñaari image yooyu Balla bu nekkul ci làmb. du la sax xool mais bu nekkee ci làmb tey boo ko jox ñëwee mu luqi la. waaw parce que liggéey bee ko laaj. ah da ngay luqiwaat. waaw liggéey bi moo ko laaj ci làmb. Mhm. mais na wax dëgg yàlla ku ñu fekk ak ñi ak doomu kaf reetaan nekkaat ci leneen la parce que tamit aussi loolu mooy àdduna loolu mooy àdduna. d'accord li des mooy du ma bàyyi te laaju ma ko. sa rak sa doom sa xarit sa jarbaat ba Baldé jubbis nga ja nga jalaat nga jëflante ki mu doon jëflanteel tey tey boo doon moytuloo Ama Baldé tey ci bis boobu lan nga koy moytuloo ci Modou Lo. non Ama Baldé amuma lan ma koy moytuloo ci Modou Lo. da nga ak xam nga danger yi de ci Modou xam naa Ama xam naa ko baax xam naa ne mbër la champion la Modou Lo mbër la la ah, xam naa ne Ama amuma lan ma koy moytuloo ci Modou Lo ndax la mu doon xam na ko la ko yàlla defal xam na ko yàlla na ko suñu borom mooy ndam. Balla yoo duñu gis même bu amee Modou sax ni ngay préparé bokkul a ñeneen parce que xam nga wexaayu Modou Lo di moom maanaam maanaam dangereux nga ne doo moytu loo ay doon keer champion la ay doon keer lañ ko tudd. kan moom ay doon keer laa koy wax moom bu ma doon keer ak ñi ànd ak man ay doon keer mooy amul lenn lu ma war a lijjanti. ci anglais. Mm-hmm. amul lenn lu ma war a faale. Mm-hmm. ci li mu war a nekk lay nekk ci li mu war a def lay def ay magam ay xaritam rawatina Jules la nekk champion nekk mbër jaar fu ne ci làmb. kon Ama Baldé am na encadrement bu doy am na saf bu doy man aw ma lenn moo koy moytaloo ci Modou Lo dara lu dul ñaanal ko yàlla yàlla may ko ndam. Mm. ndam bu sedd guy. Mm, mm, waaw ñenn ñi def analyse nag jàpp ne Ama Baldé peut-être dese naa pare euh, ab tagul combat bi suñ ko baree du baax ci moom yow en tant que sportif fréquenté Ama def ci moom lu bari tey lan nga dolli Ama am nga yaakaar ci wax jooju wala dangu woo. waaw xam nga léegi làmb. c'est-à-dire que am na ñoo xam ne dañuy wax pour promotion la Fadam bii de moo njëkk a wax loolu. am na ñoo moo njëkk a wax ni Ama Baldé mii daal dese na ak yooyu wax. non non <laughs> yéen ñaar ay ay ay copain ngeen. non ay copain ngeen ñaar ay copain ngeen. waaw kon ni ngeen ko defee ngeen lii mooy lii mooy àdduna. mais nit koo xamante ne day xëy yor bureau chaque jour mu xëy di dem liggéey moo xam lu nekk ci bureau moo xam dossier bi rek la ak yu mu dul rek la. voilà lamb dafa rek. waaw bureau bu ko ay bureau lamb nag. bureau boo may tudd naa ñu ah, waaw maa ngi lay déglu. laissez-moi eh, terminer s'il te plaît. vas-y vas mais ma xam nga booy xëy di liggéey sa saak ngay gàddu yow sootu dem sa mbër bi day xëy di gàddu dem dinya baa mu dem géej baa mu dem musculation ngoon jot mu dem contact bi ay million dafa neex man léeg bu ma gisee ñu naan mbër bi entraîné wala mbër bi pareegul ay ree daf may jàpp parce que mbër bu ñàkkoon jom du fay ko ay millions mbër bu amulul fulla am de ñemewul lu muy def non fi gars yem nga yem ay trois cent mille quatre cent mille ñu lay fay ay centaine de millions nga non noo fit non sax yow loo am fit fit fit mooy la nga toog benn place sa ngor mooy la nga toog sa benn place xoolal yow ñu lay support ak ñu lay ñaan ak ñu lay jàppale ñii booy bëri ñii ba a rey seen bopp loolu waxin la rek xëy na peut-être gars yi dañuy wax neexal pour ñaaxaat mbëri rek ka làmb boobu xëy na yi bëgg nañ mu neex mais ñu koy wax ñëpp man xam naa leen ku ci mel ni Bour Gueweul xam naa ko. moom fan bëgg Ama Baldé la. non ku bëgg ñëpp la yéen ñëpp yem bëggoo leen kenn mais ñëpp ngeen yemale parce que loolu mooy sport amoo droit faral kenn mais nag ki nga bëgg yow xam yàlla moo xam parce que yàlla suñu borom sax day bëgg ndax bëgg na Rasulullah du dëgg yàlla suñu borom Rasulullah rek lañ gën a bëgg ci àdduna kon donc yal na leen yàlla dafal jàmm defal leen salaam defal leen jàmm toog mais Balla euh, rinkum Ama Baldé ak Modou bëgg nga lool seen rinkum mais àdduna ko bëgg nga naa ma ba bëgg na lool mais seen rinkum xam nga runkum daje ah runkum daje ci la ba ah waaw mais bàyyi ñu ndékk man ñaareel xew na de Balla <laughs> du ci wax mais dafa benn piis la del déglu del xool Feeling Dakar site bi lay jox yu leer Feeling Dakar yaa ngi Feeling Dakar nga am info yu leer ci people sport politique Feeling Dakar yaa ngi Feeling Dakar